أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد المكين وعلى آله وصحبه أجمعين إخوة الإيمان والإسلام والإحسان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki M Media Group Nuuru Daarayni ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa taala di julli ci yonente boobu sallallahu alayhi wa sallama di leen baal xaq di ñaan ngeen baal ñu xaq di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu nangul ñu suñu jaamu yàlla te jéggal ñu suñu rëcc-rëcc ñuy dellu si rek di leen siyaare leen dokkeel bu baax a baax ci weeru koor wu tedd wu sell wi ñu nekk wu bari ngëneel yi ñu nekk di ñaan lépp luñ ci jaamu rek yal nañu ko yàlla nungul te fajaanu ci suñu aajo zahiran wa baatinan àdduna ak alaxira te jégal ñu ci suñu yëpp rëcc rëcc nag ñuy siyaare mbokk yëpp di leen dokkeel di jël siyaar beeg nuyoo bi rek di ko teg ci loxol kilifa gi ak Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mu jot li ñu ko mboole mbokk yi ci biir rek góor ñeeg jigéen ñi mag ñeeg ndaw ñi ñëpp ñoo leen di saare di ñaan yàlla subhanahu wa taala ñu teewe ko ay déwéni déwén di jaay seydna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon tey dañuy jëllu si rek jéema tàbbi ci liggéey bi comme ni ñu ko baaxoo di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu dolli ñu jël dimbale bu baax a baax a baax kon tey laaj bi nga xam ne bii moom lañu fi jëkk am rek mu jóge ci soxna astafay ñoo ngi koy ziar bu baax a baax di ko ndokkeel ci weer wi moom dafay laaj fadailu xiraati suuratil mulki wa awxaatiha maanaam dane moom day faral di jàng suuratul mulki di laaj nag lan mooy ngëneeli jàng suuratul mulki te mooy tabaaraka waaye tamit muy laaj yan waxtu moo gën ngir ñu di ko mën di jàng xam na loolu lañ ko ci wax rek ci wàllu ngëneeli jàng suuratul mulki ak waxtu yi nga xam ne yi xam na wan waxtu moo ci gën ngir ñu jàng ko xam na dañ koy tënk rek ci bu ñu demee ci masaalikul jinaan téereeb Cheikhul Xadim bu màgg boobu rek ñu jëm ko fa tënk ci lenn ci njariñi jàng ko ak it waxtu wi nga xam ne yooyu sëñ bi nee na moom moo gën ñu di ko ca jàng kon mooy dañ ko naan sëriñ bi dafay wax ci masaalikul jinaan ne wa suuratul mulki bi kulli layli taqil fata fil xabri kulla hawli wa kullu man athbata rakaatayni baadal isha bi suuratayni tayni al mulki wa sajdati fallahu ala yaxfiru fi gadin lahu ma faala min al xataaya thumma yarfau lahu darajatan wa baalu yaktubu lahu xasanatan bi kulli zanbin xat jana fa xaasa minhuma al mazaaya wal muna xaadim rasul bi ñuy jàng masaalikul jinaan dafay wax lenn ci njëriñu jàng saar yi muy wax ne suratul mulki daal képp koo xam ne kii mën nga koo saxal di ko jàng maanaam guddi gu nekk nga di ko jàng ne ne dina la fegal lépp loo xam ne lii tiitaangale joo xam ne ji nit ki mën na koo am ci bàmmeel waaye itam dina ko fegal njàqare bàmmeel ak tiisu bàmmeel ak xataayu bàmmeel ak lëndëmaayu bàmmeel kon gis nga kon léegi booy xool kon loolu day nekk benn ci njariñ yi nga xam ne yi jàng suuratul mulki làmboo na ko te muy lu gën a am solo loo xam ne lii sëñ bi wax na ko muy bàmmeel boobu nga xam ne bii ku nekk di nga ca jaar te it ay tiitaange bari fa lool ak njàqare ak it diis ak ab xataay ak ab lëndaay ak ab lëndamaay mën na fa am sëriñ bi ne ne képp koo xam ne kii saxal nga guddi gu nekk nga jàng suuratul mulki ne ne njàqare bàmmeel yooyu yëpp ak tiis ya ak yu métti ya fa nekk yooyu yëpp ne ne njàng moom nga jàng faatiha suuratul mulki yàlla dina la ci defal tawfeex yi tiitaange yooyu ak tiisi bàmmeel yooyu yëpp doo ci gis dara ci sa biir bàmmeel boobu daa di waxaat na itam képp koo xam ne kii mën nga ko nga mokkal suuratul mulki ak suuratu sajdati guddi gu nekk nga naafilaa ko maanaam julli ko ñaari rakka jàng benn rakka bi nga jàng fatiha ak suuratul mulki beneen rakka bi nga jàng fatiha ak suuratu sajdati ginnaaw boo jullee gee ba pare sëriñ bi ne ne yàlla dina ko jéggal su ëllëgee lépp loo xam ne li defal na ko ci ay ñaawteef waaye tamit dina ko yëkkatil ay daraja yu kawe kawe yoo xam ne yi teraanga yu bare bare bare lay doon waaye tamit ne ne yàlla ci mbaaxam ak yërmandeem ak ngëneelam ki saxoo di naafila ñaari rakka yu guddi gu nekk di ko naafila ñaari saar yooyu yàlla mu ne ne sëriñ bi ne ne yàlla kooku lépp loo xam ne defal na ko ci ay bàkkaar sax yàlla day wër bëtiku bàkkaar yooyu bu ci nekk mu changer ko ko defal ko ko aw yiw ak i tuyaaba ak i xiiwal kon sëriñ bi ne kon lii ku ko yàlla defal daal da nga cee daal di am ay xiiwal yoo xam ne yii yu kawee kawe la yu rëy rëy la waaye tamit da nga cay amee ay ngëneel yoo xam ne yii yu bare bari la kon bu ñuy xool laajab soxna si bu njëkk bi ci wàllu suuratul mulki rek ngëneel yi gis nga ko foofu kon dañ fi seetlu ne sëñ bi wax na fi juróomi njariñ yoo xam ne yii jàng saar wi ak di ko naa fi la làmboo na ko muy boo demee ci bàmmeel doo fa gis lenn loo xam ne li dooy tiit la waaye tamit soo ko dee naa fi la ginnaaw gee moom saaroo di mulki ak sajda yàlla daal di la jéggal say bàkkaar muy ñaar bu ëllëgee waaye tamit ñetteel ba mu yëkkati la ay daraja yu kawe kawe yoo xam ne yu kawe kawe say njot lay doon waaye tamit ba cay tege muy bépp bàkkaar boo xam ne bi defal nga ko maanaam mu suppil la ko defal la ko ay ngëneel ak i teraanga muy kon lenn loo xam ne ab tënk la ci lenn ci njëriñi suuratul mulki waaye tamit gis nga bu fekkee ni waxtu wi lay wax waxtu wi ci gën mooy maanaam nga di ko jàng ak guddi ndax dane suuratul mulki daal képp koo xam ne kii saxal nga di ko jàng ci guddi gu mën a doon rek maanaam dana la fegal bépp tiitaange boo xam ne bii nit ki mën naa daje moom ci biir bàmmeel kon di ko jàng guddi daal xam naa kon mooy gën doon day dinañ ko jàng bëccëg waaye itam kon buñ ko dee jàng guddi itam ci lay gënee beneen laaj bi ci topp ba tey soxna astafay di ko laaj mu ne dafay wax ne man nasiya salaata zuhri walam yatazakkarha illa baada subaxi maanaam ne koo xam ne kii daal dafa fàtte julli tisbaar waaye bi mu fàtte julli tisbaar nag yeneen waxtu yi ci topp yépp daal julli na ko ba ca suba ga ca ëllëg sa muy dog a fàttali ko ne léegi moom kat ndegete julli dan tisbaar ne ne kon kooku nan lay def dañ ko naa fal waajibu ala man nasiya salaatan an yusalliha fawra tadakkuriha ne ne li war daal mooy képp koo xam ne kii fàtte nga julli maanaam foo ko fàttale ko rek maanaam danga war a daal di gaaw daal di koy julli wa binaan ala dalika fa man nasiya salaatan walam yatazakkarha illa baada adaai salawaati lati baadaha fal yubaadir ila xadaayi haatihi salaatil munsayati ne ne nag du tere ne ne képp koo xam ne kii ci kaw loolu dañ ciy wax ne képp koo xam ne kii fàtte nag julli te fàttaliwu ku kaw maanaam yeex na ko fàttaliku ba yeneen julli yi ca topp yépp mu julliwaat ko ne ne na gaaw julli goo ko rawan mu daal di koy fay nga xam ne mooy julli nga xam ne kii moom la fàtteen su ko defee wa tabra u zimmatuhu minha bi salika ne ne bu ko defee julli googu daal di koy wàcc wala ismaala yi te ne bu booba dootu ci am benn bàkkaar boo xam ne bii moom la ko ciy topp kon dal loolu ko dal muy waxtu julli woo mu fàtte man bu dem ba julli yeneen waxtu ya ca topp jamono ji mu ko fàttale ko rek da koy daal di fay waaye yooyu itam du ko dabaatal noonu rek la koy bàyyi yooyu mën naa wëy su ko defee tartibul fawaid qabla al xaadirati fiihi xawlaani al wujubu wal istihbab dañu ne bu lay julli yu yu lu toll juróomi julli wala lu ko gën a néew bu la rawee danga ko war a jëkk a fay ba pare doog a julli gi teew loolu boroom xam-xam yi dañ cey wax ñaari wax dañ ne maanaam jiital googu maanaam jiital fay gi am na ñoo xam ne dafa war la ñu wax waaye am na ñeneen ñoo xam ne loolu dañ koo sopp rek kon ci kaw ñaari wax yooyu muy ñii ne danga ko war a jiital ba pare doog a julli gi teew ñii ne dañ koo sopp kon ci kaw sopp googu la ñuy sukkandiku ne bu la rawee nga dem a dem ba julli ca topp nga dog ko fàttaliku su boobaa moom danga koy fay rek su ko defee yeneen ya ñoom dañuy jàll doo leen julliwaat beneen laajaan bi laaj bi ci toppaat ba tey soxna astu fay dafay wax man faatahu man faatathu salawaatu li ajli rukubi taairati ne julli yi nga xam ne nit ki bu duggee avion da koy raw yooyu nan la koy fayee nan la koy dabaatale léegi li ñuy jàng ci fiqh dañuy wax ne ida kaana safaru xasidan salla al insaanu fi l baladi alladi xasadahu wa in kaana safaru tawilan yusalli fi taairati wala yatruku salaata xataa yaxruja al waxtu dañ ne nit ki dal bu dee tukki tey dugg ci avion su fekkee ni tukki gi maanaam guddut maanaam mën naa àgg fi mu jëm balaa waxtu woowu di dëgmal di jeex ñu ne mën naa xaar ba dem ca dëkk boobu nga xam ne bi fa la jëm mu daal di julli waxtu woowu waaye nee na nag bu fekkee ni tukki ga dafa gudd day yàgg nga xam ne ay waxtu da koy fekk maanaam waxtu julli da koy fekk ci biir avion bi su boobaa dañ ne maanaam nay julli ca biir avion ba maanaam waroo bàyyi julli ga maanaam jéem tukki gi dafa yàgg ba ay waxtu julli dina fekk ci biir avion bi nee nañu maanaam da ngay julli ci biir avion bi waaye nee nañu maanaam doo bàyyi waxtu yooyu muy jàll ba seeni waxtu di jàll nga di ko doga julli ne ne yu salliha ala xasabi taaxatihi ilal xiblati yaduuru ma taairati xaysu daarat ilal xiblati nee na julli googu nag ni nga ko defee ci biir avion bi mooy kem num la jàppandee rek maanaam da ngay fexe nag avion bi nga lijjanti ba jéem a xam xebla gi su ko defee bu julli jotee fekk la ci biir avion bi nga daal di jóg lu xebla gi daal di koy julli su fekkee ne avion bi day wëndeelu yi tamit nga fexey fexey fu mu wëndeelu rek nga woyow itam nga walbatiku fexey ba xebla gi nga jàkkaarloo ak moom dene nag wa yusalli xaa'iman in istataa wa in lam yastati al xiyaam salla jaalisan fil faridati wan nafli dene julli googu itam bu fekkee ne mën ngaa taxaw da ngay taxaw comme ni nga doon taxawee ci suuf di ko julli waaye soo ko mënut it nga xam ne mënoo taxaw ci biir avion bi maanaam da ngay toog di ko julli ne nañ nag ñoom borom xam-xam ne nañ moo xam julli googu julli farata la wala julli naafila daal gum ci mën a doon man nga ko julli da nga ko war a julli ci biir avion bi su fekkee ni waxtu yooyu dala fay fekk ci biir waaye doo ko bàyyi ba seeni waxtu bi jàll soo wàccee di ko doog a fay waaw kon ci biir avion bi daal may dañ ne leen nanga ko ca jullee su waxtu ya jotee su la jàppande yeneen laaj yi ci topp suñ bés fay moo ko fi yónnee xam naa moom itam ñaari laaj la moom dafay wax ne al isbaax bil janabati fi ramadana maanaam ki nga xam ne kii dafa am sobe ci guddi gi maanaam ci weeru koor wi moo am sobe maanaam sëy naag soxnaam ci guddi gi waaye nag sanguwut farata ba bët set ne ne kooku lan mooy àtteeb kooram googu waaw dañ ko naan al isbaaxu bil janaabati fi ramadaana laa xaraja fi zalika maanaam borom ñi jàngale fiqh dañ ne daal nit ki su yoree sobe ci biir weeru koor wi maanaam bët set maanaam mu xëyaale sobe soosu maanaam loolu du yàq dara ci koor gi maanaam day sangu rek bu bët setee fexe yi dem tàggoo ak sobe soose waaw kon daal xëyaale sobe daal ci ki woor may nañ ko ko maanaam du yàq ca kooram googee dara beneen laaj bi ci tesit mu ne ida waafaqa iidul fitri yowmal jumaati hal yu baax lil insaani an yu sàlliya salaatal iidi duunal jumaati moom beneen laaj bi itam bas fay ba tey ne ne su fekkee ni dañoo war a julli jullik korite wala jullik tabaski te bés boobu nekk bésab ajjuma te am koo xam ne xañ na fa muy jullee ji feet iid ga dafay xaw a sori ci moom ndax dinañ ko may maanaam mu julli julli korite ga rek wala tabaski ga doona ba bañ a julli ajjuma ci bés boobu waaw nenañ may ne ne nañu zalika mu baaxun inshaahu salla salaatal iidi dunal jumaati wa yusalli salaata zuhri ne léegi nit ki itam may nañ ko bu fekkee ni jullik korite gi wala jullik tabaski gi daa tombeek doon bésab ajjuma may nañ ko léegi bu jullee julli googu bu ajjuma jotee waaw bu jullik ajjuma gi jotee mu bañ koo julli te julli tisbaar loolu tamit may nañ ko nit ki su fekkee ni fu jullik yaayit googu dafa dajeeg bésub ajjuma bu ko neexee mën na julli tisbaar ci bés boobu te bañ a julli ajjuma yàlla ñu yàlla doole defal tawfiq bi jaay seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam